maaleykum mbokk yi man la Abou Thioubalo euh, di chanteur euh, compositeur euh, ñi gën ko ràññee ci woykat bu dëkk Pikine juddoo fa yoroo fa màggee fa waaye tey nag ci beneen cadre lañ nekk ci beneen facette mooy fasetu u parce que abu Thioubalo ku ko xam-xam ne Bakar abu Bakar sii la tudd di Thioubalo di lébu maanaam waaye tey dama faral maam damay faral dem gàmmu comme ni ko julli di defee yàlla dogal mooy ñëw ci gàmmu gi. di dem Tiwaawoon di dem Touba dem fu ne ba am sama benn xarit bu tudd Ameth daraame yàlla dogal mu indi ma fii bi ma indi ci kër gi nag daf ma nëbb lu bari mais bi ma nëbbee lu bari dama fay ñëw fekk benn nijaayam bu baax di rek ci yaayam di Ibrahima di sët ci ki nga xamante ni moom mooy Yacine Dieng ajaratu Yacine Dieng nag buñ ko waxee xeli day dem ci maam Wàkka te xeli heure bu demee ci maam Wàkka rek xeli day dem ci ki nga xamante ni moom mooy maam Khalifa tey nga dégg dëgg tey nga gis nit ku xam histoire kawlax rawatina ca ñasen ga kii ma toogal sëriñ la te wax dëgg yàlla am na foo xam ne bu fa bokkoon tey day laaj addiya waaye mi ngi nii muy jantal paa ñi dem bisimilah sëriñ bu mag la nag. salaamaaleykum Abu ñu ngi lay gërëm di la sant di gërëm di gërëm sa xarit Ahmed xale bu am jom la di gërëm magam ji Pa Moussa moo leen yar. di gërëm këbiir Mële gàmmo gi su ma fi ñëwee ren yàlla ak moom Ahmed mii la ak Pape musa mi ak Kabir sama foofu oto bi ñu ngi nii yëpp a tojoon. ñoom yaay seen nijaay. seen yaay moo ma yar. suma pont bi mhm. diggante aéroport mhm. Blaise Diagne ak Dakar ci la ci benn drap duggee bi mhm. Ahmed mii moo jënd pont bi fanweeri junne yaa ngi dégg essance bi ma ñëwee fii Kabir moo ma ko jox. te ñoom ñëpp maam mooy seen maam. mooy sama ay jarbaat lañ. Mm-hmm. seen yay yaay Pape Moussa mi seen Touré mooy maire bi nekk ci biir moo ñu yar. Mm-hmm. fii lañ juddoo ci kanamam fii lañ màggee ñun ñëpp daf ñu jox ay surno kër gi mm-hmm. cosaan bi laa la bëgg a gannaaw bu ma gërëmee amet gërëm Kabir gërëm Pape Moussa gërëm euh, usmaan oto bi bi ma koy jënd usmaan ma ko jëndal waaw. yaa ngi dégg. yéen waa Click TV di leen gërëm et bon parce que yitte bi ngeen def ba mun a ñëw ci kër gi mhm. cosaanu kër gi laa leen bëgg a wax. non ñun dañuy faral di ñëw gàmmu mais lii duñ koy faral di def te yow damay gis sa waxtaan day neex ba pare da may am ñëpp jërbaat ñëpp bëgg la quoi nga nekk jantal paa jantal grand yaa ngi dégg ba pare doon koo xamante ni ku jege nga tey yaay moo tax tey ñu bëggoon nga wax ñi kër gii nga xam ne yow fii nga dëkk kër gi lan mooy histoire ak ak waa kër gi mooy. Maba Jaxu Ba dafa oote jiyat bi mu ootee jiyaat ñëpp uy ko maam Mor Anta Sali mi jur Serigne Touba uy si ko mu jox maam Mor Anta Sali mu sanc Poroxaan maam Mohamed Niass mi jur maam Alaaji Abdoulaye Niass uy si ko mu jox ko dëkk bu ñuy wax Ñaseen boo jógee Ñooro di dem Tayba am na beneen dëkk bu tudd Ñaseen Ñaseen boobu la maam Mohamed Niass njëkk a sanc maam Mohamed Niass moom moo jur maam Alaaji Abdoulaye Niass bi maam El Hadj Abdoulaye Niass di ànd ak baayam maam Mohamed Niass di uyu si si jiyaat bi Maba woote boobu nee nañ vingt trois ans vingt la war am maam Soogi Sarr ànd maam Wàkk Sarr ñëw uyu si si bi. ñoom ñaar duñ mooy doomi Soogi. ni maam alaaji àndeek maam Mohamed ñëw. Mhm. noonu la maam Soogi àndeek maam Wàkk ñëw. maam yow say ñaari maam ñoo ñëwandoo dem jàppale ji Maba Ba. waaw suma maam ak suma maamaat. suma maam mooy wàkk maamaat bi mooy soogi. li tax ñu ànd ñëw ñoom ñaar mooy ne Maba bi mu ooyee jihaat bi ñëpp dañoo ñëw. Hmm. mais jihaat boobu lan la woon jihaatu nafs wala. ay ay tubaab lañ doon xeexal la ay tubaab lañ doon xeexal. Hmm. Paate Badiane xeex bi mujj am. yaa ngi dégg fii ci boori Dingiraay te ñoom ñaar kenn daanoo déedéet maba ma nga daanoo euh, kii ma ma euh, ña ngi ko suul Fatick. 3 kilomètres de Fatick fa la maba daanoo. waaye say sa maam ak sa maamaat ñoom ñibbisiwaat nañu. maam dañoo ñibbisi bi ñuy ñibbisee maam El Hadj Abdoulaye ak maam Wàkk Sarr. maam Abdoulaye Niass moom mooy euh, waajur wax. mooy waajur Baye Niass. Baye Niass jur Baye Niass. Ah, kon maamu maamu. am am am mooy jur Baye Khalifa Baye xalifa jur Ahmed waaw muy seen maam quoi. muy seen maam. Mm-hmm. maam Alaaji la jógee fii aj aji màkk dox ak tànk. 1913. Mm-hmm. Mm-hmm. la jógee fii aji màkk dox ak tànk jaar Faas. fekk na Cheikh Ahmed Tidiane Chérif nekkati foofu parce que c' est pas la même période Cheikh Ahmed Tidiane Chérif 1737 la. maam Alaaji bi mu jógee fii dem ci 1900 yi la Cheikh Sikeri ji la fa fekk. mu jox ko lijaasa mu gane fa ñetti ñetti juróom benn weer ñii naan juróom ñaar ñibbisi ñibbiseem boobu ci la jaari woon Tiwaawoon mais bi ma giyaatu Maba Jaxu bi jeexee maam wak mi nga xam ne fasante na kóllëre ak maam alaaji Abdoulaye Niass jumaa jii ngay seen sama gannaaw ba maam alaaji Abdoulaye Niass di sanc fekk na mu rëddal pàkk fii maam wak sax pàkk bi maam alaajee ko jox maam wak waaw parce que commandant de bi nekkoon fii maam alaaji Malick si dafa bindoon lettre commandant de cercle bi ne ko kii dañ ko soxla boobu maam alaaji dafa bëggoon a dem ca anglais ba Gambie. kan mooy maam alaaji. maam alaaji doomu ab bàyyi Baye Niass alaaji Abdoulaye Niass moo bëggoon dem léegi maam alaaji Malick si bind leetar jox ko ko pour mu jox ko commandant de cercle bi nekkoon fii. bi mu ko joxee commandant de cercle bi commandant de cercle bi ne ko waaw lan nga bëgg. mu ne ko man li ma bugg mooy ne bu nawet jotee damay naweti bu noor jotee ma ñëw fii hmm. ñu ne ko kon fii baax na mu ne lew na ma ñu ne waaw mu ne lew na ma ñu ne waaw loolu moo andi baatu lew na. maanaam kon yéen ñii dégg ñu naan lew na lew na ñaseen maanaam nekkul turu nit wala turu keneen maanaam lu dëgg la quoi loo xamante ni. maam nga nga liggéey dara mu lew la ñu la ko kon loolu moo indi lew na. li ngeen ma jox lew na ma ñu ne ko waaw moo andi lew na ñaseen gi. waaye léegi yan rapport la am ak sa sa maam yooyu ba tax ñi ñëw dëkk fii ñoom it. sama ñaari maam moom laa la expliqué léegi ñi ngi fasante kóllëre ci jiyaat bi Maba Jaxu woote woon. voilà fo dama may ma développé ko rek parce que soo ma dogee doo am développement bi on revient sur les mêmes questions jiyaat bi nga xam ne moom la Maba Jaxu woote bi wootee maam alaaji ci la xamanteeg maam wàkk saar bi jaat ba jeexee ci la maam alaaji ñëw fii sanc fi bim koy sanc boobu maam alaaji Malick si moo gis ne maam alaaji dafa nar delluwaat ci anglais ba ci gàttal maam alaaji Malick si daje naag maam Ousmane si ci daara alxuraan maam Ousmane si moo jur alaaji Malick si maam Alaaji est de 1844 maam Alaaji Malick Sy est de 1855 magee na ko 9 ans moo tax maam Alaaji Malick si gisul yaayam gisul baayam moom bi muy laata juddu fekk na baayam génn àdduna loolu maam ji fekkee na ko ndax dañ daan daje daje nañ ci daara léegi tarixa tijaan ba itam maam Alaaji Malick Sy silsilaam mooy mi ngi jële ci Thierno Alpha Mayoro nijaayam bi nga xam ne moo maam Fa Wade Wele ñoo bokk ndey ak moo ko njëkk jox tarixa bi Thierno Alpha euh, Thierno Alpha Mayoro Omar moo ko jox Cheikh Omar Mouhamadul Ghali lii mooy silsila maam El Hadj Malick léegi fii bi ko maam wàkk sancee ci la dem jëli maam Yacine Dieng nag Kajoor maam yaa Dieng. may sa ngóonee ko may sa ngóonee ma xorojo roqee kebe ma xorojo roqee kebe ma pay maa jor ma pay daaw kumba yaasin daaw sendo daaw kumba yaasin daaw sendo may sa omal sàll may sa omal sàll jëwrin aale ba bu kumba sàll jëwrin aale ba bu kumba sàll muse mboore nit day xam moom mais mais mais yaa neex a buur uh-huh. buur la woon bi nga xam ne bi muy ñëw fii téeméeri nit la àndaale bi muy sëy si bi ko wax sàll jëlee uh-huh. téeméeri jaam la àndaale fii mais kon kër gi kër histoire la. kër gi ni mu nekkee kër histoire tey jii kër gi moo jur Seyda Mariama Niass kër gi moo jur El Hadj Abdoulaye Niass première xalifu Baye kër gi moo jur actuel xalifu Baye Niass muy Serigne Maye Niass kër gi moo jur Baba Lamine kër gi moo jur Seyda Hawa ñees bi nga xam ne jëkkëram muqaddamu shérifu Baye la ca Limdil ca Mauritanie. mais kon kër gi. kon kër gi kër la goo xam ne gi euh, euh, barkeel weesuwu ko. est-ce que ay sëtam xam nañ loolu. sëtam yi am nañ ñu xam ñu mel ni Ahmed xam nañ ko ñu mel ni Pa Moussa xam nañ ko ñu mel ni Kabir parce que dañuy intéressé te Seynabou Touré maam Yacine Dieng daf ko daan li cosaan lu bëri. gis nga kër gi fii ma gaare suma oto bi Baye Niass gaare na fi oto ba sonn seet si maam Yacine Dieng bu jógewaan fii fii lay taxaw si jàkka ji dut sis ma ndaw bu jógee si dut sis ma ndaw papaay Adi Thiam Ibrahima Thiam fa la daan taxaw mooy Thiam gaynde bu fa joxee kër maam Abdou Thiam lay taxaw daal di delluwaat Medina. maanaam bay Niass Baye Niass bi ñuy wax borom faydu bi ci boppam. fii ñëw na fii ba sonn. maanaam Baye dugg na ci kër gi. fii la jëlee soxna tuuti na sama làmmeñ law la tuuti naa ci pour wax ko fii la jëlee soxna muy sama bàjjen Aïssatou Sarr. suma maam Yacine Dieng moo jur Aïssatou Sarr. kon Baye Niass ay doomam juddoo nañ fii ci kër gi. fii mun naa ne Serigne Maye bi mu nekkee xale fii lañ ko jexoon Seydou bu Touré wax nañu ko léegi ci biir kër gi. ci maam Yacine Dieng lañ ko andiloon waaw ci kër gi nekk na fi nekk na fi juróomi at bi mu nekkee tout temps may toog na fi juróomi at ci maamam Yacine Dieng boobu nag moo jur Ami Sarr hmm. jur Fat Sarr jur Amadou Sarr jur Aïchatou Sarr mi jur ñoom euh, actuel xalif bi hmm. jur Xadi euh, Sarr jur Mbay saar jur Xadi Sarr non euh, li ko Baye Niass wax rek doy na wakil bi daal di la ko Baye Niass wax donc Baye Niass daf ko defal xasida bi muy jàngi xaayira alhamdulilahi yaqulu ibrahima abdoulaye Niass waladi jisman wa ruuxan wa incha allah xaw na ala mustaqbali wa tariqi wa qati al oustaz mouhamadul amin ibrahima Niass loolu la bindal lil fa xalqi lillahi toola layaale kooku li wax doy na kooku loolu doy na sët ci li ko Baye Niass wax waaw léegi léegi daal ci gàttal ñun ñi ngi sant yàlla bu baax bi ñu yàlla boole ci famille boobu ak askan woowu te loolu li ci ëpp solo mooy ne buur yi fii mooy ne fii ci senegal sëriñ si fi nekk yëpp dugg nañ ci kër buur yi jël fa soxna waaw mais lan nga ñuy wax ñun ñun ñi nga xam ne ñu ñëw nekk ay xale bëgg dara ci gàmmu gi ñun ban comportement lañu war a yor waxuma la ñun ñi de famille bi maanaam ñun xale yi Sénégal yëpp jeunesse Sénégal lan ngeen di wax. xam nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu seyri daf ko woy ne daa ilallaahi fal mu samsikuuna bi mu samsikuuna bi xabri xaylul mu fasimi faaxat nabiyina fi xalqin wa fi xuluqin mu ne daa ilallaahi yi mu ne yonent oote na jëmale si yàlla. oote bi mu ne buum la goo xam ne boo ci téye catal buum gi ci des mi ngi ci loxo yàlla te du fiñceeku astamaag muy dog yaa ngi dégg moo tax guddig yonent bi kupp kum jaral jóg ne yonent ba ma tax a jóg dem màggal ko yow jëflante woog sa bopp yàlla ngay jëflanteel parce que yàlla nee na yonent nee na ana minallaahi wal muminina min nii man ci yàlla laa jógee nit ñaa ngi jóge ci man mbindeef yëpp donc yàlla lim jox yonent bi joxul ko kenn moo tax ñu ko ooyee xayrul xalqillaahi di ko ooyee imaamul mursaliin yaa ngi dégg moo tax yonent bi li ko yàlla jox jox ko kenn te képp kuy jullit booy julli boo ne allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaaha illallah waaw. ok léegi jeunes yi daal yow li nga leen di dëggal mooy comportement bi nan la war a mel. nañuy gàmmu ji. te buñ gàmmujee nañ jël caaxaan teg à côté bu doonoon ay istixfaar la nga yore sa kurus def ko mën na laa jëriñ bu doonoon ay salaatul faatiya la mën na laa jëriñ parce que yàlla mu ne inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi julli leen ci yonent bi ndax moom dafay julli ci yonent bi moo tax nit benn julli tuutiwut rawatina nag salaatul faatiha boo ne allahuma nga ne yàlla borom tur yi màgg yeeg melo yu sell yu rafet yi salli yàlla nga ma tibbal ci xéewalu julli ak xéewalu julli ni màggee ala saydina Muhammad ci sun sang bi ñun ñëpp ndax bu yonent nekkee saydu rek ki ñu yëkkati ñi si des ñëpp ay masjudu lañ du ma yàlla. kon daal tey mën na wax ni gàmmu validé. non gàmmu gi. du validé yem si. mais jàppal ne saa yooyu jógee dem si jotaay bu mu mënti doon boo xam ne jotaay yonent bi se c'est validé validé ndax yàlla nga fay fekk. benn yi doy na tey nag gis nañ tey tey gis nañ innovation ci biir kër gi.